dikum mbokki senegal mbokki diaspora rawati na mbokki touba ñi ngi leen di ziar eh, di leen jajeufal seen doom seen rak serigne mbacke jeng initiateur du projet mourid media group bi xam na ñooy saytu ak di yëngutu ci seen site leader mourid.info ñoo ñëw di ay leeral rek yu nga xam ne nga ni ci ay coow yu fi am ci semaine bii ci diggante Mouride info ak Mouride info Mouride bii ak Mouride bii ndax ñeeku moom wala ñii moomuñu ko liñ ciy leeral euh, ñi nga xam ne que ni interpellé nañu si parce que kilifa yu bëri woon nañu ci diggante ñetti fan yi wala ci ñeenti fan yi di ñu si interpellé ba xam. Euh, loolu nu nu mu demee ñu bëgg ñu déglu ñu bu baax a baax rek pour ñu mën a comprendre li nga xam ne que ne mooy li ci xew bi ci njëkk mooy ne que bu ngeen gisee micro bi ma yor ni logo bi mu ngi nekk M ak info logo boobu moo nekk suñ page Facebook moo nekk ci suñ site internet moo nekk suñ compte YouTube suñ compte YouTube mooy ñett yi ma lim ni yëpp boo ci dem di nga ci fekk suñu numéro téléphone officiel yi nga xam ne que ni moom la ñuy liggéeyee di leen fàttaliwaat rek ne leen euh, Mourides point info dafa nekk benn projet bu nga xam ne ñi ngi ko lancé depuis 2013 kon ren mi ngi ci cinq ans juróomi atam euh, ba tax na am na ñu nga xam ne dañuy xolu firange wala jalousie wala yu demee noonu tax ñu bëgg a saboter projet bi ba tax ñuy am yeneen yu ñuy def ci ginnaaw pour mu leer ci bopp ñëpp rek nekk Euh, machine dafa wala informatique dafa nek lu doy war ma jël ben exemple rek Touba buñ ko jëlee niñ ko xamé ci niñ koy ni moy T O U B A muy Touba mais par exemple tay man su ma jëlee sama xalima mën T U B A Touba lay doon danañ wuute ci niñ koy bindee pour machine bi accepté ko mais ñoo bokk nen nu koy liré moy li ci am benen bi moy nak bu ngeen démé ci euh, benen page Facebook bobu ñuy wax Mourides Info buñ ko tuddé seen xélu ñu bari di dem ci ñun euh, taxna bo ngeen xolé logo bi mi ngi ci ginnaw logo bi ñom seen logo ci dañ lañ ko def mu rond mais ñun suñu logo moy ni mu leen ko waxee nii mooy M bi ngeen di gis ni euh moy naka moy logo bi ngeen di seen ni moy M bi nga xamne mo am info bi mourid comme vous l'entendez avec s.info moy info mooy suñu notre domaine moy suñu extension mom extension dafa jël murit info mais bo démé ci page Facebook wala nga tapé ko directement ci sa navigateur d'internet do gis dara page blanche lay ubbi mooy nekk site bi existé wut boo ko doon recherché ci même euh, noonu mu ko bindee ci ci Facebook boo ko demee ci YouTube boo ko recherché doo ko gis te loolu mi ngi bëgg a parce que euh, site internet yi nga xam ne dañoo nekk ci dans la communauté mouride bëri nañ man soxla may tudd tur mais am na si ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne tey am na ñeneen ñu leen di jéem a concurrencer soit au niveau YouTube wala au niveau Euh, Facebook ci réseaux sociaux yi boo demee na gis ñu jël les mêmes noms di ko utiliser lu nga xam ne xëy na bu duggee kële comme que c'est travail professionnel moom la nit ñi di gën a gis gën ko bàyyi xel ba tax na moom lañ ci interpellé beneen bi tamit mooy nekk duñ mën a daaneel suñu kàddu mukk te duñ ci leeral parce que souvent day am ñu bëri ñoo xam ne dañu interpellé ci contenu wala ligne éditoriale euh, seen site leader mourides point info muy nekk waruñu traité li wala waruñu traité la ñu leen xamal ne projet bi bi ñu koy créé du woon caagee nag rek yam ci côté religieux parce que gis nañ ne ne Sénégal dafa bari ay secteur d' activité yu nga xam ne dañ ko war a euh, relayer les informations yu fay xew ba am mbokk taalibe wala keneen ko mën ni doon di yëngatu ci loolu mën a xam exactement euh, li xew ci milieu boobu ba tax na souvent dañuy jot wala li ci ëpp dañuy jot ay commentaire jóge ci page Facebook bi ñu ñuy wax lu ñaaw lu lu nit di xalaat ñu ngi ñu koy wax ci suuf ñu di ko muñ de di xam ne que ne moog liggéey bi ñuy def ñoo ànd ba tax na euh, ñu leen di xam rek ne leen bu fekkee ne que ne des fois dañuy dugal ay information yoo xam ne ne neexu leen wala gis ñu seen bopp ci page Facebook bu Mourides point info ba tax ñu ñuy saaga wala ñu ñuy xas wala ñu ñuy wax wax ju ñaaw ñu xam ne équipe bu Mourides point info jégal nañ leen ci xol bu sedd guyu parce que ki la jiitu rek ci moom nga mën a am kàddu yu ñaaw yooyu teg ci moom beneen bi mooy ne que euh, fépp fu ñu dugal euh, màggal wala cant wala conférence religieuse wala lenn luy diine mos ñu leen a gis ngeen def commentaire apprécier war ngeen ñaanal ñi nga xam ne que ni xamu leen ban coono la ñu daj ba liggéey boobu mu egsi si yéen ba ngeen mën ko seetaan ba ba ab di ci yëg benn euh, contentement bi wala benn mbégte li ba tax na pour ñu gàttal wax ji rek muy ne que équipe bu Mourides point info ñi nga xamal ñëpp ne. coow yooyu ñuy dégg ñoom seen yoon nekku ci jegewuñu ci laalewuñu ci seen yoon nekku ci parce que ñoom lu leer naññ la ñuy def nëbbutuwuñ ba soxla képp ku leen soxla boo leen bëggee jot téléphone mën nga leen a jot soo leen bëggee bind électroniquement seen adresse email mën nga leen bind ba tax na ñu ngi leen di wax ne kat ñun suñu kàddu fii la ñu koy yemale di leen jox da dig daje ci yeneen xibaar ci yeneen information yu wérte wóor ñu leen di jaajëfal